mu ngi noonu mu nekkoon lii yéen kay woon tey suñu gan euh, fekk si ñu si plateau bi Pape Abdoulaye Touré euh, maa ngi lay nuyu da nga da nga ñëw en retard mais bon garaawul dañuy tàmbali comme géré nañ ko ba fii maa ngi lay nuyu di la dalal ci matin bonheur. waaw euh, maa ngi lay fay. di mhm. nuyu suñu jigéen. Mhm. di nuyu téléspectateurs yu 2STV yëpp. Mhm. di nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci diaspora bi. di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi ci biir coalition. le temps de la jeunesse dafa jot. ñu ma jox autorisation tey ma ñëw fii. Mhm. di tub bu baax di jéggalu ci retard bi xam nga man daanaka dëkkuma Dakar. ah bon APEX si Tivaouane Peulh bi. fu la ah, laa dëkk même soo teelee yeewu sax ci es mhm. obligé nga xaar. ba si mhm. kanam kanam oto yi mën a génn. nga soog a mën a ak circulation bi am ci. réew mi donc maa ngi profité di jéggulu sénégalais yëpp. ci minute de yi nga xamante ni am nañu ko. Mhm. Euh, Adjar Bonari Cissé la fas yéene àndal ci waxtaan bi dañu dem directement ci coalition boobu nga yor muy temps de la jeunesse dafa jot euh, dangeen ngeen bëggoon bokk ci élection législative yi mais est-ce que jamono bi euh, ba tey yee ngi ci logique boobu walla dafa am lu leen gàllankoor. waaw comme ni ko ñëpp xamee élection yi ñu ñu jël ñu dëgmal ay élection anticipée la mhm. donc bu mu jotee. ñun ñu sol suñu dàll mais ñun dañoo am engagement wu bokk ci élection yi. Mhm. sans pour autant ñu ànd benn parti politique. c'est bien à préciser que ni coalition boobu tudd le temps de la jeunesse dafa jot. Mhm. est composée essentiellement de jeunes. Mhm. te amul benn parti politique boo xamante ni topp na ci ginnaawam wala mi ngi koy jàppale wala mi ngi en tout cas mi ngi liggéey ak moom. dañoo gëm ni. Euh, assemblée nationale mbirum askan wi la te mënoo wax mbirum askan wi te waxoo les différentes couches de la société et parlant des différentes couches de la société mënoo cee génnee la jeunesse d'une manière générale waaye aussi également mënoo cee génne les étudiants message bu ñu bëggoon a lancer à travers cette initiative mooy ñu lancer un appel fort à l'endroit de tous les étudiants du pays pour que ñu xam ne assemblée national kenn moomu ko. bés bu ñu defee benn say jël suñu ay égo. jël suñu ay intérêt crypto personnel tegee ko na le xool ñenn ñoo xamante ne am nañu éthique am nañu déontologie ci ñun. ñu jiital leen bés bu étudiant yëpp defee mbooloo votel ñooñu dinañ dem assemblée nationale. objectif bi mooy au moins des étudiants en particulier mais aussi la jeunesse d'une manière générale ñu dem assemblée bañ faa représenter benn coalition. ba ñu faa représenté benn mouvance ba ñu faa benn opposition mais ñu représenter fa seen bopp. comme nu ko benn adage doon waxee tout ce qui se fait pour toi sans toi et présumé fait contre toi mënuñoo wax ni assemblée national avenir u Sénégal lay xeexal. te soo demee ci ay rapport ANSD muy agence nationale de la statistique et de la démographie mu ne la 75 pour cent de la population sénégalaise est composée essentiellement de jeunes. jeunes yoo xamante ne amaguñu fanweeri at ak juróom maanaam trente cinq alors que j'en ai discuté avec un, euh, euh, un ancien parlementaire du de la quatorzième législature mu ne ma ñetti nit ñoo am moins de trente cinq ci législature bi weesu loolu day wane ni ñun amuñu place te pourtant ñoom composé soixante quinze pour cent mhm. de la population looloo ñu révolté loo ñu bëgg a waxaale aussi ci suñu initiative bi que ni assemblée malheureusement dañ ñoo dugal ci benn piège boo xamante ne saa suñu waxee mbirum élection législative askan bi lu muy njëkk a xalaat mooy mouvance bi am majorité wala opposition bi am cohabitation alors que assemblée du loolu mooy cëslaay bi assemblée cëslaay bi mooy fexe ba toutes les différentes couches de la société ñu am ay représentants à l'assemblée su ko defee seeni représentants mën di plaider seen ay jafe-jafe seen ay aspirations seen ay préoccupations au niveau de l'assemblée ba ñi jiite euh, réew mi. mën di jot ci jafe-jafe askan woowu. Mhm. loolu moo nekkoon ñun suñu objectif. te ci loolu la ñu nekkoon comme sa question ni nga ko waxee ndax ñu ngi ci dynamique boobu ba léegi ñun ñëpp xam nañu ne élections yi c'est des élections anticipées ñun dañoo def suñu déclaration le samedi 21 su ma juumul alors que le samedi 28 la ñu waroon a. boucler lépp lu jëm ci wàllum caution ak yenn dossiers yi mais man quant à loolu malgré loolu yëpp ñun lépp lu ñu waroon a def ci cadre ci domaine administratif def nañu ko ba ci wutum récépissé cachet beeg lépp ba dem ci commission bi ñu reconnaître ñu suñu tur donc xaw a moo tax indiwuma papier yi mm-hmm, mm-hmm. donc yëpp def nañu ko lenn moo ñu empêché pour ñu bañ a bokk ci élection yooyu muy caution wu quinze millions mm-hmm. bi nga xamante ne teg nañ ko te loolu ñun ñëpp xam nañu ko xam nañu ne suñu système politique bi boo war na bokk ci lu ñu war a soppi parce que nit mën na bañ a am caution quinze millions ëpp légitimité ki nga xamante ne yor na ay milliards. Mm. nit mi ngi nekk ci réew di xeexal réewam te yorul fukki dërëm waaye euh, defar na réewam loo xamante ne nit yor na ay milliards te defaru ko réewam te loolu day tax suñu homme politique yi wala yenn homme d'affaires yi mën ñoo di noot cest di dire dañuy bàyyi ba élection ñëw ñu génnee 15 millions te ci table bi ba pare ne la bàyyi jiitu ci liste ñun amul proposition bu ñu jotul. Mm-hmm. ñu bëri bëggoon nañ ñu bokk seen coalition. te ci euh, démarche boobu la ñu jaar kenn xamu leen tojuñu fenn. kon seen caution moo matul. suñu caution moo matul kenn xamu leen. tojuñu fenn daf mel yow ci étudiants yi nga ko wékkoon ah. waaw ci étudiants yi nag lañ ko wékkoon. Mm. mais euh, xamoon nañ ne probabilité bi faible na trop. mais lu ñu tegoon comme stratégie loolu moo am ci dëkk yi amuñu xaalis nag waaw amuñu xaalis seen bourse yi moom ci génnee di cotiser amuñu xaalis mais lii seen intérêt la seen njëriñ la uh-huh. étudiant lépp lu ko amal njëriñ dina ci dugal xaalisam uh-huh. parce que man je pense que lii sax mu farata di dem di inscrire ci ay xawma kiiw France ñuy téye sa passeport uh-huh. lekk sa xaalis te duñ la jox visa campus France donc étudiants yi te campus France xamoo ñaata milliards lay jëlee ci réew mi chaque année ñaata étudiants ñooy daw di fay te ñun lu ñu laajte woon bëriwut parce que soo xayma étudiants yi ci étendue territoire bi ci quatre cent et quelques mille la ñuy toll ñu ne ci quatre cent et quelques mille yooyu na ci cinquante mille ku ci nekk yëkkati téeméer sa Wave wala sa Orange Money nga dugal ko xam nga loolu loolu ce n'est pas une somme conséquente ñu ne ku nekk su defoon téeméer ci cinquante mille yooyu di nga am vingt cinq millions non seulement di nga fay caution wu quinze millions dix millions yi nga takkale ko sa campagne loolu waxuñu ko pour ñun mais bëgg nañu dans l'avenir étudiants yi su génération yeneen yu ñëw parce que ñun bëgg nañ fi ak cinq ans dootuñu yoru ci statut étudiant jàll nañ ci leneen. Mm-hmm. wuti nañu liggéey. am na leneen ñu def fekk ñu pare suñu jàng et tout ça mais bëgg nañu génération yi ak suñu rakk yi nga xam ne ñoo topp suñu ginnaaw ñu xam ni jot na. seeni ay jafe-jafe amicales yi mënuñu koo régler parce que suñ ko mënoon régler depuis des années amicales yi ñu ngi xeex ci ay. Euh, travaux yu inachevé di xeex ci ay retard bourse di xeex ci ay problématiques yoo xamante ne ñoom ñu ngi koy dund te ba léegi saafarawul mhm. ñun maanaam objectif bi initiative moo nekk fexe la tout ba ñu am ay représentants yoo xam non seulement ci université yi ni ñuy dëkk ak étudiants yi di bokk ak ñoom amphithéâtre yi di bokk ak ñoom les restaurants di xam qualité restauration bi di bokk ak ñoom lépp loo xamante ne ay conditions de vie la ba su ko defee étudiant boobu noonu nekk député dina mën di ànd ak ay naataangoom ku ci am problème mu jàpp sa loxo yóbbu la ci ministère bi ne diw ak diw ak diw dañoo am problème. Abdoulaye Mal su ma ko su ma ko mayee rek am naa benn question euh, tey euh, Pape Abdoulaye Touré dañ la ràññee woon justement nga nekkoon koo xamante ni euh, ci événement yi jàll. Euh, Sénégal pëccoxoo woon trop ci wàllum euh, politique euh, présidentielle yi ñu jàppoon la fi jàpp boo xamante ni wane ay bavure yoo xamante ni defoon nañ la ko yooyu noonu donc ba ci loolu ñëpp di la méngale ak partisan wu Pastef léegi bi ngay ñëw si sa njalbeenu kàddu yaa ngi préciser que ni yéen bootuwoo leen ci benn coalition wala benn parti tey lan moo motiver loolu parce que euh, da ngeen remarqué ni que euh, parti yi ngeen di défendre même bu nekkee bokkoo leen si bu ngeen dem ci biir a biir amul programme boo xamante ni jeunesse yi dinañ ci sentir seen bopp lan moo waral motivation bi tax ngeen ne euh, coalition yeeg parti ñooñu mu ñu leen lijjantil seen ay seen ay problème waaw loolu dama ciy profité sax pour préciser benn mbir man depuis que ma nekk Pape Abdoulaye Touré né le 25 décembre 97 ba moment bii may wax ak yow. musuma bokk ci benn parti politique. musuma kon bokkoo ñuy jàpp na bokk passif kon bokkoo passif. loolu wax naa ko fu fu ne. ñu koy jàpp jàpp ñu xam naa benn mm-hmm. truc rek mais. Mm-hmm. même ñi jiite parti bi xam nañu ne man bokkuma ci benn. parti la mooy ak Pastef. bon dañoo nekkoon ci benn dynamique. Mm-hmm. ñu jaay ñu projet man ma bokk ci sénégalais yi gëm projet boobu te jàpp ba léegi ne projet boobu moo mën a defar Sénégal taxawaay bu ñu amoon a démb ak barki démb su situation boobu nekkaatoon tey wala suba ñu am taxawaay bu ko raw parce que képp ñu fiy teg injustice ñun ñuy taxaw sa wet jàppale la dooleel la xeexal la ba injustice boobu ñu la bëgg a teg ñu bañ nga ko teg man ak yenn sénégalais yu bëri dama nga xool détenu ancien détenu politique yi suñ dee 2000 yi ñu ci bokk wala am carte membre Pastef bëriwut dama nga xool ñu génn àdduna d'accord ñu génn àdduna ñëpp soo demee xool lu ñu ci ëpp laa majorité majorité écrasante bi amuñu sax carte membre Pastef mhm. donc mais dañoo bokkoon benn idéal te jamono jooju waxuma woon Pastef kese mais waxuma woon ñun kese mais opposition bi ñëpp ak société civile bi yëpp dañ doon jàppal tànk Ousmane Sonko dañ doon jàppal tànk waa Pastef parce que dañoo gis ne Macky Sall dafa nekkoon ci tànk gor ko peu importe mu éliminer ko donc loolu lañ doon xeex démocratie la ñu doon xeex te principe yooyu ñu doon xeex moom la ñuy continuer di xeex ba léegi quant à élection législative nag maanaam mooy lu ma la doon wax sànq dañ ñoo gëmloo ni ñun sénégalais yi que élection législative su amee par la force mouvance bi dafa war a am majorité wala opposition bi dafa war a nekk dans une situation de cohabitation ñun gëmuñu loolu te nit loo gëmul doo ko défendre ñun lu ñu gëm mooy assemblée nationale bi mbirum parti politique même su fekkee ne am nañ ci solo ndaxte code électoral bi jox na ci pàcc bu am solo waaye tamit képp koo xamante ne sénégalais nga te bokkoo ci parti politique san san ne doit pas nga am ay engagement ne man